wajalilaayi maskani Tuubaa baat misras mi abijaayi xayri man abaat liggéey bi waaw xam ne yaakaar naa lu mat mu ngi fi ñëw nga fi mooy ñaari yoon nga di fi ñëw sax fan yi guddi guddi daan fi ñëw waaw moom day <coughs> wax ji du gudd xanaa sant yàlla bu baax rek nangu ay dogalam te muñ ko nag sant day waral ndooleen muy itam koo def yàlla jox la muñ nga mën a mucc tiis wi jërte jàmbat ndax day mel ni alal yi yàqu ak yu mel ni yu jëm si woon ci jëmm yi la waaye loola fekk ko kon nag bu Touba ci kanam jóge nga xam ni itteem yëpp mooy defar dëkk bi ak dimbali taalibe Sëñ Tuubaa yi bi amee sëñ Abib mi ko jiite taxaw ci taxawaay bu rafet ndax la ci war waxtaane woon nañ ko àndoon naa feeg moom ba muy waaj jënd cinq yeeg yu ñëw fi ba jënd nañ ko nag ba defar ko taalib itam sanc nañ ko taalib yi sëñ nag ñooy ahli sëñ Tuubaa te am na lu leen yàlla jox loo xam ne waruñu koo fooyee waruñu koo caaxaane war nañu ko def ci yoon yàlla yoon yàlla rek a ngi nii taalib yi yaakaar sëñ Tuubaa ba noppi néew doole lañ am ko su néew suñ borom natt leen ba yóbbu ko kuy def defal foofa ëllëg yawmal xiyaamati al akbar foofu amul eh, looy yóbbaale dangay jiital rek boo demee fekk ko fa ku jiitlu nag doo yóbbu dara fii nag ma des na fee jiital ko xiif ak dëkkal ko ak jox ko mu naan dara ko te ñii yëpp soxla nañ ko ku am xaalis indil ku am ceeb indil ku am diwlin indil ku am ciment indil ndax soxla nañ ko te néew nañ doole te njaboot ak sëñ Tuubaa la njaboot suñu borom la sëñ Tuubaa nag daa am lu mu waxoon ci dëkk bii wax ko ak njabootam ni leen doomu adama bu kenn bàyyi ci biti ci naaj ndax da ko fonkum ko fonk wërta xiif itam wërta mar moo tax bu jëkkoon njaboot sëñ Tuubaa foo dem ci kër yi danga fekk ay mbaar fekk fa ay ndaa fekk fa ay wanag fekk fa lépp daal nag ñaar laa yebal ci yéen kuy laaj ak kuy joxe fii xamewul nag ñi joxe ñu ëpp ñuy laaj kon nag tubaa ci kanam li muy laaj lu xam la waaye fi mu koy def xam nañ ko kon nag ku bëgg a liggéey sëñ Tuubaa na nga ñëw jàppaleen ci liggéey bi ñi ko jiite jub nañ bokk nañ ci sëñ bi am nañ yaakaar tali bi ñuy àndale dem di ñu jub lañ te kenn mënu ci laatal dara ndax fi ñu ko def wóor la te jëlee ko fa yombut ay ay mbooloo sëñ doog koo jëlee kon nag ku bëgg a defal sëñ na ñëw fii ku bëgg a jàppale sëñ Tuubaa na ñëw fii sëñ Tuubaa nag loolu ci lañ koy jàppale waaye saan wi dem di dellu si la ndax loo def ci yow lay dellu si kon nag lu ci waay def ba mu ko xeeb ba mu ko naw ndax sëñ Tuubaa am na fay te dana la fay kon nag ñu ngi woo julli yëpp di woo taalibi yëpp di woo képp ku bëgg a def lu baax daal fii ma des na ko fay def te ko def yàlla gis ko yonent bi gis Sëriñ Tuubaa te ku bëgg nag ñu gis sa jëf kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ak sama application Wave naa ci jaarale sama addiya mu jëm ci Touba ca kanam nii laa koy defee damay ubbi sama application Wave dem ci menu paiement cliquer ci logo Touba ca kanam mu andil ma fi nga xam ne lépp lu ma bëgg a ci Touba ca kanam mën naa ko ce jaarale valider ko mu dem ci konti Touba ca kanam jërëjëf Serigne Touba. wajalilaayi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri man